Euh, moom nag euh, jot na teew na arrêté mi euh, bu bu génn pour pour te interdire moto yi. ñu non non non gisuñu arrêt arrêt arrêt boo xamante ne. par rapport ak yi daan par rapport ak yi. li amul ni mu daan am ci ci ci wàllu ci wàllu sécurité. tey jii yéen tey ni mu mel moom. par rapport ak la fois passée. oui c'était un peu compliqué. te arrêt amul nit ñaa ngi dox seeni soxla borom moto yaa ngi daw. kii la boo xam ne nii li ma wax sànq rek procès final la dañuy ñëw. na kii moo gañe wala kii gañewul waaye nag dafa am leneen loo xam ne wax nga ko sànq c'est-à-dire mënuñ ko vider carrément ndax boobaa mën na yàqal ki ci des moo tax ñu jël mbir yi au cas où bu Mame Mbaye Niang gañee ñu jël mbir yi yóbbu ko conseil constitutionnel kon mooy wan na mbir yi commencé gul sax loolu loolu loolu bu fekkente ni ñoom dañu dañu ko adapté hmm. euh, loolu ñoom tey duñu wax dara ci yëf bàyyi kon ba conseil constitutionnel doo koy ñoom ñu soogee xam dans ce cas naka la ñu war def en fait mais pour le moment puisque ñoom waxaguñ ci loolu dara ñu ngi xaarandi en tout cas lan moo nara tukkee ci biir ak suñu euh, représentant yi nekk foofu noonu ñu wax ñu exactement euh, li nga xam ni euh, moom moo nekk di xew ci biir Wally en attendant baal ma utaale tuuti vérification ba xam yëf yi fan la toll rek dans deux minutes ma ñëwaat. d'accord alors Cheikh ñu ñëwaat ci procès yi nga xam ne yaa ngi ci doon wax sànq daan procès Adji Sarr moom moo la gën a marqué ci procès yi nga xam ne ñoom ñoo. am ci réew mi ndax nag ñu bëri ñàkk nañ ci seen bëkkan ñu ci bëri ñàkk ci seen liggéey ñii ñu xaañ leen seen àq ak yelleefu euh, maanaam ci bokk ci yenn élection yi wala sax ñu jël leen yóbbu leen ci kaso bi ndax boobaak léegi am na ñu bari ñu ngi ci kaso bi génn ñu euh, mu nekk nag projet boo xam ni ça restera euh, ça dans l'histoire ndax lan ki nga xam ne moom la ñu wax ne Adji Sarr moom ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko mi ngi Cap Manuel Euh, kii di Adji Sarr kenn xamul fu mu nekk boobaak léegi. mais man nag euh, beneen procès boo xam ne itam euh, damooy dafay des à chaque fois sama xel xam mooy ban procès. mooy jour bi nga xam ne Ousmane Sonko doon na uy ci. Mhm. ñu koy bundu xotaal di ko di di toj otom. Mhm. et tout ça la ca jotoon a xew. ba ñu sax jël ko yóbbu ko vite fait këram ba gars yi tuddee ko cak-cak maanaam coppet yóbbu këram la ca jot a xew ngoon jot moom waroon def li nga xam ne moom mooy conférence de presse defu ko. Mame Mbaye Niang ak ñamu àndal dem fa la nga xam ne moom mooy ca permanence su APR woote conférence de presse ña ngi fa woon da ca jot a xew ba ñam ñuy juble ak ña fa nekkoon ñoom ñëpp dafa xamoon lu nekk lu doy waar. ak ak ausman Sonko yi nga xam ne xañ nañ ko ko te à chaque fois bu ñu demee bitim réew dégg nañ ki nga xam ne moom moo fi nekkoon ministre la justice di Ismaïla Madior Fall mi ngi doon wax naan Ousmane Sonko kenn mësul bafoué ak ak yelleefam maanaam euh, ak ak yelleefam yëpp dañ ko koo jox ba mu mat sëkk ci état de droit la ñu nekk ci état de droit boo xam ne la ñu nekk nga barricade nit état de droit bi ñu nekk boo xam ne ku wax ñu jàpp tëj état de droit boo xam ne saa yu ñu waxee wala nit posté ci page Facebook am nga dem jëli ko bari nañu fi eh, ñoo xam ni jàpp nañ leen yóbbu leen lan la ñu def dañoo bind ci seen page Facebook di naqarlu wala sax di joxe loo xam ni ci feneen lañ ko jëlee ndax boo xoolee jabaru Tahirou Sarr on se rappelle très bien d'après la mu wax moom mooy dañ ko posté ci miro mu reprendre ko ñu jël ko yóbbu ñu bëri euh, am na keneen ka doon àtte la fois passée te ñu mujj ko dàq sax ci liggéeyam je pense que xaw ma la tudd xawmatuma nu mu nu mu tudd exactement la mu euh, fañ ko doon jëlee ca fu mu doon liggéeyee mu nekk mbir moo xam ne doy na waar lool ci li fi jaar ci procès ñu ci jot ñàkk seen bakkan ñi ñu xañ seen àq ak seen yeleef yooyu yëpp Cheikh ci keneen nit di Ousmane Sonko moom mu nekk tey ci kaso bi ñuy ñëwaat tey ci ay mbiram c'est-à-dire xaw ma sax ban question laa la mën a posé quoi lan la lay sax exactement mooy tënk loolu lépp acharnement hmm. tey jii dafa am euh, contre sa personne ah, parce que nag euh, Ousmane Sonko il est un candidat très très sérieux ci élection présidentielle 2024 yi nga xam ni moom la ñu dëgmal ah, d'ailleurs euh, yenn ci xibaar ñi nga xam ne ni am na ci sondage yi jot a génn yëpp Ousmane Sonko dafay gagné élection yi dès le premier tour. Mhm. loolu euh, am na am amul dégg nañu ay xibaar yoo xam ni wax na lu jëm ci loolu. beneen bi ci des ci wàllu représentativité ci wàllu mbooloo tey ku ne xam ne Ousmane Sonko ah. doole bi mu yor ci Sénégal jamono ji ni kenn kenn dootu ko natable li ko firndeel wane ko mooy ci élection locale ak élection législative yi ñu génn mhm. tey bari nañu falu maire bari ñu nekk député Ousmane Sonko moo leen baataral campagne ñu nekk euh, falu maire wala député loolu itam lu ama am solo la beneen bi ci des mooy ci wàllu position parce que Ousmane comme yaa ngi koy wax ma ma ñëw ci wàllum ak ak yelleefam yi nga xam ne nee nañu dañ ko respecté. Mhm. ñun en tout cas am na ci yu bari yoo xam ne ñun ay témoin lañ ci parce que ay taskatu xibaar lañ. ñu ngi ci lieu yi. am na euh, information yu ma jot a recueillir si biir salle bi donc fi mu ni nii euh, dix heures vingt quatre minutes bi mu jotee gis nañ ne euh, yëf yi door na si biir salle d' audience bi mhm. chaque partie maanaam avocat bu défense bi ak avocat bu partie civile bi mhm. ñoom ñaar ñëpp aura une une heure trente waaw une heure trente maanaam temps ak trente minutes pour plaider selon le juge. Maître Ousseynou Fall déclenche les hostilités. Donc c'est une euh, entorse au droit de la défense. Vous ne devez pas nous limiter. Donc ñoom kon mun nañu wax ne avocat bu défense bi avocat Ousmane Sonko yi euh, waxtu yi nga xamante jox nañ leen ko mooy maanaam une heure trente minutes moom Maître Ousseynou Fall jàpp na ne euh, loolu dafa nekk loo xamante ni donc lu lu lu tuuti la dafa nekk loo xamante ni euh, war nañ ko mën a yokk donc ñoom moom nee na nag waruñu leen a daal di limiter. si waxtu yi nga xamante ni moom lañ doon jàpp donc moom nee na au minimum maanaam bu tuutee ba tuuti euh, de quatre heures de temps sera raisonnable maanaam loolu war na xel yenu na maanaam war na leen mën a jox ñeenti waxtu pour ñu daal di amal seen plaidoirie yi donc kon mën nañ wax ne euh, juge bi ñaari parti yëpp la jox li nga xamante ni moom moo di une heure trente minutes une heure trente minutes nag xam naa dina xaw a gàtt si ñoom trop comme ni ko euh, maître Ousseynou Fall waxee par rapport bu fekkee kenn si nekk bëgg nga bëgg nga rek daal di amal sa sa sa plaidoirie donc kii di euh, maître Ciré Clédor tamit daanaka euh, comme ni ko ki nga xamante ni u seen Fall waxee noonu la ko rek daal di feeloo si wet gi mais juge bi nag dafa rek daal di euh, dafa rek daal di retirer finalement li nga xamante rek moom moo di proposition donc kon on peut attendre à ce que ñu amaat li nga xamante ni moom moo di leneen lu nar a tukkee si juge bi jëmale ko si waxtu woowee donc kon on peut dire que ne une heure trente minutes la juge yi daal di décidé maître Ousseynou Fall nag moom ak avocat Ousmane Sonko ñoom euh, quatre heures de temps la ñu la ñu la ñu sàkku pour ñu may leen ñu daal di amal seen yi ma ñëwaat léegi ne mhm. effectivement mu nekk lu lu am solo en attendant ñun ñu ngi doon vérifier euh, lan moo xew foofu la nga xam ne moo di ci diwaanu euh, conseil constitutionnel mais en attendant ñu commenté nga xam ne en tout wax na ko fësal na ko ci biir fii nga xam ne moom moo di jamono jii nii en tout cas euh, comme li nga xam ne wax na ko rek ci ñaari parti kenn ku ci nekk euh, répartir nañ li nga xam ne moom moo di heure yi waxtu yi kenn ku ne li nga war a layoo comme la fois mais ñenn ñi nee nañu li ñu leen jox dafa daay tuuti dafa ndaw nañu ko ci ci loo xam ne nii final la waaw nañu ko vraiment nañu ko nañ leen ko yokkal tey ji euh, tey war nañu mën a jël seen temps pour man bon Euh, nañu bàyyi yoon mu décider duñu duñu décider seen place mais en tout ñoom kenn ku ne ci ñaari cest tax ñu ñu ñu jël une heure de temps trente minutes jox leen ñoom ñoo ko xam waaye ñoom itam am nañu droit sàkku ñu yokkal lañ ko parce que boo xoolee euh, avocat yi Ousmane Sonko yi bari nañu naam avocat yi nga xam ne ñoom ñooy layal Mame Mbaye Niang bari wuñu noonu waaye ñii ñoo ëpp ñoom tey bu ñu jógee na un heure trente minutes dafay tuuti ci ñoom am na fu leer fu ñu seen i argument gën koo argumenté bu ko defee ñu xam exactement euh, euh, mbir yi fan la féete procès final la. effectivement fële ca conseil constitutionnel ci la di Abdoul mbay ancien premier ministre daal nay validé. Mm. trente mille quatre cent soixante parrains avec dix sept mille deux cent cinquante quatre euh, yoo xam ne ay double externe la moom nag daal dinay mën a régulariser maanaam war moom nag mi ngi valider ci lu toll euh, ci euh, six régions ci au minimum sept régions yi nga xam ne en tout cas war na koo valider boo tax war na mën a régulariser foofu la ca diwaanu conseil constitutionnel ki ci war a topp nag mooy Alsane seen ak ki nga xam ne moo di Alhassane Ould Aliou Niang ñoom ñoo ci war a topp actuellement kon mi ngi noonu ñëw fas yéene ànd ak ñoom en direct euh, lépp loo xam ni mi ngi tukkee euh, file ci cour suprême d'ailleurs ñi ngi fii ci cour suprême mais en même temps euh, li nga xam ni mi ngi tukkee foofu la ca diwaanu conseil constitutionnel ñu leen koy dëgtal en direct fexe ba dara dara du leen ci raw lépp ñu koy am en temps réel ci suñu chaîne yi nga xam ni ñi ñu fi déglu jamono ji ni actuellement Alburax comme ni nga ko waxee encore file ci biir cour suprême de Dakar ki nga xam ni wala kon ñi nga xam ni ñoom ñoo di avocat yi instant nag Euh, li nga xam ne mooy audience bi léegi mu daal di commencer parce que def nañu répartition wu heures kenn ku ci nekk jox nañ la euh, quatre heures de temps. Mhm. pour nga layool loolu la suñu confrère bi Waly daal di wax sànq. une heure trente minutes une heure trente minutes. <laughs> Euh, kon man maa juum naa ñoom doon sa ñoom ñoo doon sàkku quatre heures de temps yi. d'accord kon loolu leer na merci beaucoup merci d'avoir été la loolu rappel boobu am na ci solo bu baax a baax kon mi ngi noonu. ñu euh, fa yéene rek euh, xaarandi ñu daal di euh, commencé yëf yi en attendant ñaari parti kenn ku ci nekk sa ay position ñu leen koy dégtal en direct lépp li nga xam ne mi ngi fiy tukkee dara du en attendant foofu la ca diwaanu conseil constitutionnel. mais mais Cheikh li ma li ma li ma seetlu ci procès yi ah en fait c'est-à-dire tey jëluñu benn arrêt arrêté ah, ci ñi nga xam ne dañoo yor moto wala sax yor leneen gis nga tey dëkk baa ngi nii ñëpp ngi doxi seeni soxla. Mm-hmm. borom moto yaa ngi vaquer seen i préoccupation ndax na ñoom à chaque fois li ñuy mooy bu procès amee gis nga leen du ñu liggéey ci journée boobu te la majeure partie ci ñoom ci loolu la yaakaar pour dundal seen ku njaboot dundal itam seen i waajur buñ leen ko euh, tere dafay xaw a métti dafay métti tamit ci ñi nga xam ne par exemple dañoo yor boutique wala yor restaurant wala lu mu mënti doon ndax bu ñu defaree seen mbir ba pare dañuy woo livreur